yàlla xëy ci xasida tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax jëm ci kenn mag secret ba secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 amee xam-xam ak teggin nangeen ngeen ko topp yàlla borom bi subhaanahu wa taala ni ko yàlla waxee ci hadisul xudsi yi leen ma njëkk ngeen may jaamu su fekkee xamu leen ma na ko ngeen may jaamu kon julit bu ne war naa xam ay farataam ak sunna yëg ngëneel yëg mandoo baat yëg yëpp mustaxsanaat yëpp tabaarkalla war na koo xam mu toll ci wa bimtisaali amri sil jalaali wa tarki nahyihi ilal maali mu ne wabimtisaali ak topp amri sil jëlaali ndigalug yàlla muy borom màgg maa ngi leen di dénk ngeen di topp digleeg borom bi subhaanahu wa taala wa tarki nax yi ak bayi ak tereem ah mu ne ilal ma ali ba kerek bis nag ba kerek ngeen di dellu seen bàmmeel ba kerek ngeen di yegg ci yàlla fu ngeen toll kem seen kattan daal na ngeen koy topp digle borom bi subhaanahu wa taala waaye tere yi itam kasaale kem sa kattan xam nga lu baax kenn mëntu def lépp waaye def ci kem sa kattan lu bon itam dafa bari ba boo xoolee gis boo xoolul gis kon moytu ko kem sa kattan fattaqoo laaha mastatahtum kon jullit bi lu muy def rek day def te yàlla tax def si kem kattanam waaw nga xam ne du def tey benn lenn moo koy gaar wala njuumte wala yee caajo wala mo fàtte wala mu juum yooyu moom xeeti yónente bi duñu leen ko toggee waaye amaa tey def moom julit waru koo def julit laa war a daw lu bon kem kattanam dafa war a def lu baax kem kattanam waaw loolu moom amul sik sàkk wa ma aataakum rasulu faquzuhu wa ma nahaakum xanhu fantahu waaye nag wa taqullaha inna allaha sadidul iqaab suñ borom nee na lépp loo xam ne yónente bi indi na leen ko jël leen ko lum leen tere bàyyi leen ko waxoon ne lu ma leen indil sax man yàlla parce que yonente moo ñu indil sa yàlla la jëlee mu indil nu waaye mu teg ci nag wattaqoo laaha inna llaaha shadiidul iqaab kon def na lu ñuy wax di foofu xuppi na daal na ragal leen yàlla ndax yàlla ku tar mbugal la mooy lan mooy ku bañ ku bañ a jëfandikoo li yonente bi indi te muy sunna xamal ne ci mbugalum yàlla doo dañ mukk di nekk ci ay tolof tolof ci na waaye boo dee ci mbugalum yàlla nga jëm dégg nga kon yéen itijaan yi ak mbokk yëpp maa ngi leen di dénk wa bimtisaali ci topp ambisil jalaali digleeg yàlla muy boroom màgg wa tarki ak bayi nax yi ak terem ilal ma ali jëm ba ci delluwaay ba ñi gis ne saa soo xamee ne digle am na rek tere day am moo tax yàlla lim njëkk a dogal mooy digle dafa digle ba noppi da ko tere waaye terewut ba noppi da ko digle moo tax sax mbugal moo gis la ko njëkk mooy digle yàlla xeet woo gis mu alal alal ci xeetu njëkk yi rek daf leen digal ba noppi ñi a def mu doog a wàcc mbugal wa maa kaana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan wa maa kunaa mu'azzibina hatta nab'asa rasulan wa isa aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha xa alayha alqawlu fa damarnaha tadmira yàlla ne na bala maa alak kenn dama koo digal mu bañ ma alak ko waaye duma alak kenn te digalu la kon kon moo gis ndigal moo koy jiitu kon dañ lay digal nga bañ ñu doog laa mbugal waaye duñ mbugal kenn te digaluñ la kon digal na la nga fexe am xam-xam ak teggin yëpp di ko toppoo yàlla di ko jaaree fi yonent bi jaaroon ak saxaaba yi ci sunna kese dégg nga waaye dig digal na la ba tey ngay topp yàlla ay digalam ay diglem kem sa kattam di bàyyi ay teram ba keroog bis pinc ba keroog ngay faatu rek la ci jublu léegi nag mu lay tere mu am yu mu lay tere yoo xam ne moom yu bon a bon la yu yéesu la woon naa leen xasida gi xasida gu bëri max naa la maanaam nekkul xasida goo xam ne dañ koy tal xas jaar ci maróoral kiram dafa mat a leeral léegi nag mu am yu lay tere comme digal na la foo fokk dafa am yu lay tere boo doon misaal nga ne yii mooy seen safaan yi mu la digal yii mooy seen safaan lalaay moytuloo bu ko def kon ñëpp ci bokk mboolem ñi sàkk lu baax ak mboolem mbokk jullit yëpp ci lañ bokk mu ne laa tusrikoo waay waay ngalawaay bu leen bokkaale billaay ak yàlla keneen yaa ixwaan yi yéen samay mbokk ñu ne ko ma bokkaale yàlla lan lay def mu ne li annahu ngir naka moom yahdi day gindi ka koy def ila niiraani jëmee ko safara wala yaasu billah sëriñ bi nee ne bu leen bokkaale yàlla yéen samay mbokk mbokk jullit yëpp innamal mu'minuuna ixwa moo tax mu naan yaa ayyuha sibyaanu yaa maxsara subaa bi fu ne damir yoo ba bis pénc di taxaw ñëpp ci bokk du ko gàtt du ko ñuul dukku ko njool damir yooyu mooy wax ci tasalu subaan di ko wax tasalu suxaar ba bis penc di taxaw waxutoo murit ñi rek de déedéet yéen ndaw ñëpp dégg nga yéen mag ñëpp ñu mu ne def leen di bàyyi leen lii damir yooyu ñëpp ci bokk waaye bu ñu ixwaan moom mooy mbokki jullitam ñëpp ba tey jullit ñi rek moo tax ma ne bu leen bokkaal yàlla ndax inna sirka la sulmun asimun luqmaanu li kama bokk na ca lam dénkaani woon njabootam gi laataa muy faatu dana ko bul bokkaale yàlla ndax bokkaale tooñ gu màgg-màgg la alazina amanu walam yalbisu imaanahum bi sulmin ulaika lahumul lamnu wa hum muhtadoona suñu borom ne ñi nga xam ne gëm nañ ta jaxas wuñ seen gëm ga ak bokkaale bi sulmin ay sirku ñooñu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadoona ña nga ci biir sécurité suñu borom te mooy ña jub dëgg-dëgg kon bokkaale baaxul qul hal min surakaikum man yabduul xalq suma yexeedoo qulillahu yabduul xalq suma yexeedoo fa annaa tuufakuuna kon yàlla mooy ki sos mbindeef yi moom kenn dong moo leen di delloowaat kon kooku kenn waru koo bokkaale ak leneen ak kenn kon bokkaale alquran wax na ci lu bari bokkaale kat du dem aljana mu ne yéen samay mbokk bu leen bokkaale yàlla ndax bokkaale day jëmee nit ci safara yàlla ne inna allaha la yaxfiru an yusruka bihi wa yaxfiru ma duuna salika liman yasaw wa man yusrik billahi faqad dala dalalan dalalan baida gis nga dalalan baida xam nga waxut dalalan xariba <laughs> suñ baram nee ne yàlla nee na du ma jéggale dara bokkaale moom du ko jéggale xanaa nit ki tuub ko buddeeku ci ba set wicci na dootul ca della ku ne yàlla ñam yëpp da koy jéggale ci condition boo ko tuubee waaye bokkaale moom lu ko jéggal waaw yàlla bokkaale mooy jël mbubu yàlla solol ko sa bopp wala nga solol ko keneen yàllaa bindi asamaan nga ne yow yaa bind yàllaa bind suuf nga ne yaa bind yàllaa la bind bind sa yaay bind sa baay nga ne nga ne yaa leen bind gis nga mooy bokkaal yàlla firawna doon def maalakum min ilahin xayri fa aw xitli yaa haamaanu ala tiini faj ali saran ana rabbakumul ahla di woote uluhiyatuk rububiyya loolu mooy bokkaal yàlla yàlla alag na ko yàlla kon ci gàttal bokkaale li rot ci alquran ak sunna bëri na waaye sëñ Tuubaa ne laa tusul ko bu leen bokkaale billaahi yàlla yaa ixwaan yéen samay mbokk li annahu ngir na ko moom bokkaale yéex di day koy def ila niiraa jëme ko safara kon moytuloo na la benn bokkaale yàlla te mooy li gën a bon mooy li gën a yées ndax képp kuy bokkaale yàlla suñu borom ne réer nga réer gu sëri dëgg ndax fa nga fa ngay natt yàlla di ko bokkaale yàlla yàlla sëri na foofu laa taqtuloo bu leen rey a sa bakkan bi xayri nafsi ci lurut bakkan ñu ne lu tax mu ne is ngir nax yoo ak tereem giñ ko tere ba daa fiiñ na bi xayri lab si ci lurut ak lënt lënt amut ci mu ne bu leen rey bakkan ci lurut bakkan loolu mooy lan bakkan des na ko rey waaye day fekk muy ci luwaa lislaam lu lislaam tëral lu mel ni lislaam ne ku rey kat nañ ko rey kon ku rey nit te tay ko dañ laa war a rey waaye boo déggee bu leen rey bakkan mooy nga fekk nga fekk aw nii rek rey ko benn nga bëgg mu ñàkk alalam benn nga kañaanee ko benn nga bañ ko yu mel noonu nga xam ne da nga koo rey ci condition maanaam da nga koo tay wala nga jam ko wala nga dagg noppam wala nga dagg bakkanam wala nga damm bëñam yooyu yëpp alxuraan da ko bañ sax ba teg luwaay yi ne ku damm bëñam nit ki dañoo war a damm sa bëñ ku jam nit ki dañ laa war a jam ku rey nit ki dañ laa war a rey wa katabna alayhim fiha ana nafsa bi nafsi bakkan moom buñ ko reyee rey rek wa katabna na fi ana nas bi nasi wal ayna bil ayni bët yi tam buñ ko buqee dañuy war a buqi sa bët bi waa lan fa bi lan fi bakkan buñ ko njoofee dañ ko war dañoo war a njoof sa bakkan naka noonu nga koy topp ba ila axiril aaya waaw nopp itam kasaalika buñ daggee sa nopp dañuy dagg dañuy dagg dañuy dagg ka kala ko def waaw su ko defee dootu ko defati buñ dammee sa bëñ ñi damm bëñam buñ la jamee nga fay comme lañ la jam waaw waaye terewul yëpp nag kum neex kuñ ko def itam nga jéggale kala ko def lépp waaye lislaam moom bañ na ko dafa ba dafa dafa dafa aaya ray bakkan maanaam ci tay ko gis nga rek xadir jaamu bi yàlla boobu nga xam ne dafa àndatoon ak yonente yàlla Moussa bi mu rayee bi mu rayee aw nit Moussa dana ko laxat jeex sa say an nukuran ndax bokk na ci yonente yi sarta ya leen yàlla joxoon mooy bu leen rayante seen biir bu leen rayante seen biir waaw bu leen rayante seen biir di rayante rek heure bu ne te yëxóor ñu bonoon lañ nasaraan yi rayante rek lañ fi nekkee woon di tuurante deret rek ci waxtu ne Moussa na ko def nga mbir mu sarixa bañ muy rey nit kon rey nit kenn war koo def bëgg rey nit rek ngir adduna bëgg rey nit rek ngir dond ko jamono ji may waxee ne am na koo xam ne rey na wuy juróom bu góor wala wu jigéen ngir alal rey na magam ngir alal rey na rakam ngir alal lépp am na fi lépp ngir adduna rek fu ne adduna rek te lu mu yàgg-yàgg moo ne danga fi bee danga da nga faatu da dee loolu kenn mas koo gis bokki kon laa taqatuloo bu leen rey anaf sa bakkan bi xayri nafsi ci lurut bakkan mooy bakkan kenn terul ku ko rey waaye buñ koy dañ koy rey ci lislaam lu mel ni ñaar ñoo xam ne góor ak jigéen ñaar ñëpp sangew kii am na borom kër kii am na jabar fu ñu leen fekk ñi booloo dañ leen war a sànni xeer di leen sànni xeer ci ngiru yi bañ faatu bañ dee wet kon kooku bakkanam des na ko rey ndax ci atteb lislaam lañ ko reyee gis nga kon ñooñu des na leen rey waaye amaa nga fekk ab bakkara reyu déedéet loolu moom suñu borom nee na ku rey bakkan te tey ko safara nga jëm waaw wa man xatala muminan mutaxamidan fa jasaauhu jahanamu xaalidan fiha yàlla nee na wallahi ku rey bakkan te ko tegu ko fenn sa pay mooy jahanam yàlla ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal mu teg ci meneen laa taqrabu bu leen jege asina njaalo maxat tux yaa ni ko goy beew ñi wamaala ak alali xayrikum kudub yéen maxal maylaani ànd ko koy jeng ja na ngeen ko jeng mu ni ñi jeng wëlis ñi beew ñi ak njaalo ak alali ku dugg yéen bu leen ko jege àndale leen ko ñooñu bu leen jege njaalo njaalo ko yonent bi bañ na bane ba ne bu ëllëg yowmal xiyaamee safara dana toll benn mama ne ne day xesaw xut ba mu jaaxal ñépp ñu waaw lii moom lan la ñu ne lii de mooy pëy ak ñi daan jaalu ci adduna tey moom la ñuy lakk seeni pëy ci biir safara te njaalo ko yonent bi ne ku koy def saxar xanam du leer da ngay tëqoog ñàkk te doo gudd fan yii yëpp dafa nekk ci njaalokat yàlla na ci yàlla te yàlla mooy ki bind nit moo tax mu xam nit ndax dane gu leen ko jege ndax xam na ne jigéen yaa ngi mën a bànneexu ci moom nga man koo jege xoolal fu ne bu ngeen di woonte téléphone rek muy haatif am na ñoo xam ne dañuy bànneexu ci kaddu jigéen woote téléphone la ñuy dem léegi nag yematuñ ci woote ba waaye dañuy far dajee ci benn pinc benn garam ngir góor gi gis na ne kaddu ku jigéen gi neex na ko moo tax mu ne ko kon nañ daje barab sàngam ñu daje barab sàngam waxtaan soo lëg si ñu ne nañ dajee barab sàngam noonu la ñuy def ba njaalo juddoo ci te njaalo lu yomb la njaalo nekku ne ku am doom rek mooy ki njaalo tey tiim nit ki jigéen gi di bànneexu ci moom te daganul la rek loolu xeeti njaalo la yonent ne saa sam nee booy xool jigéen rek jublu ci maanaam ak bànneexu ci moom rek te daganul la dafa xaraam ci yow mboolee guñ leen takkagoo ko loolu rek ak njaalo kon njaalo yaatu na nekkul ne ki sëy jigéen rek ba am ca doom kooku mooy njaalo waaye boobu moom mooy bi gën a yées ci mboolem xeeti njaalo yi kon yàlla nee na la bul jege lam doon wax soxna yonente fa yan maxalla si fi xal bi marlum bu leen jege yeneen góor ñi yéen soxna yonente bi ndax bu ngeen di wax bu ngeen di wax ak yeneen góor ñi am na góor ñoo xam ne seen xol yi feebaru bëgg jigéen moo ci nekk fii qalbihi maradun maanaam feebaru bëgg jigéen moo ci nekk léegi nag yéen soxna yonente bu ngeen di wax ak yeneen góor yi di nooyal seen kaddu xëy na mën nañ leen di xemam ngir ci seeni i kaddu moo tax am jigéen ñoo xam ne xam nga jigéen dafa neex baat góor gi mu ngi leen di xemamee ci seenu neex ak baat ci seenu neex ak kaddu moo tax yàlla mi xam lépp waxul laa tafxaloo sina bu leen def njaalo te mënoon na ko wax waaye mu ne laa taqraboo sina innahu kaana fahisatan wa saa sabilan yàlla nee na njaalo li gën a yi sax mu yor goo koy defee lu ñaaw la lu bon la waaye yoon wi nga koy defee sax moo gën a bon ndax kuy njaalo ku ne da nga fen ba jeexal xeeti fen yëpp da nga ko dajale danaa la jox nangam am na nangam maa moom nangam am na koo xam ne day gëm loo nit ki jigéen soxna si na ko maa moom place bi maa moom oto bi maa nangam lépp rek ngir fen ngir yoon wa koy defee yàlla nee na wasaa la ngir bëgg rek ngeen booloo am na koo xam ne bu ngeen xasee booloo góor gi rek amatul ci yow loolu ba tey gis nga xeeti xor la waaye lu bon a yàlla ci yàlla musal sëriñ bi nee ne bu leen jege ñaalu waaye nag ak woy beew ñi bu leen ànd ak ñi nga xam ne dañoo beew mooy ñoo xam ne dañoo am alal ba noppi beew waaye nee ne lu dul seen alal bu leen ci jëm ah, kon kon alali jàmbur waroo koo jël ngir lan yaa ko ëpp doole wala yaa ko man yëpp wala yaa ko ëpp moyen waroo koy def kon wa maa la xayrukum ma an lan laa taxar ba bu leen jege asina njaalo ma at tux yaa ni ànd ko woy beew ñi mooy ñi nga dañoo beew ci réew yi waa maa la ak alal yi xayrikum ku dugg yéen bu leen ko jege maal may laan ànd ko way jekk yéen daal jéng leen ànd ko ñi nga xam ne dañoo jéng walis lii bu leen jaalo bu leen ànd ak way beew ñi bu leen jël alal yi ku dugg yéen yéen daal yem leen rek ci li ngeen moom kese waaye lu ngeen moomut bu leen ko laal mokk yéen daal nekk leen rek ci li ngeen moom kon loolu rek mooy ab jullit mooy warteefu ab jullit mu di ko def jamono ju nekk daal lépp luñ la tere daw ci kem sa kattan bul ànd ak ña koy def léegi nag ab jullit moom li ko war mooy wartu ànd ak ñey def lu bon déedéet dangaa war di ër bu ne ay àndandoor ay xarit yoo xam ne danañ lëq ci jëmee la ci lu baax di la lu bon waaye amaa ne bàyyi naa lii ba noppi dem ànd ak ña koy def déedéet loolu ab jullit waru koo def yàlla nañu ci yàlla musal mu ne ijtanibul xiibata wa riyaa wa a wal mun munkara wal fansaa mu ñëw nag ci yu bon xam nga gis nga ñaari laa yi mën naa bàyyi xel laa taqatuloo sax laa taqraboo sinaa laa tusul ko billaay ñett indil na la ko ñetti laa yëpp mat naa bàyyi xel yëpp mu lépp bul ko def bii mu a bul ko jege bii mu ne yii mu ne bul ko def léegi nag mu ñëw la mu ñëw la ci yi gën a yées te bëri ci pinc mi lool dafa bëri ci pénc bi mu ne ijtani boo na ngeen wëttandiku wëttandiku mooy heure bu ne nga koy moytu wëttandiku mooy moytu xam nga nit ki lu moytu rek lépp lu muy moytu rek maanaam mën na ko bañ a def waaye lépp lu mu doon moytu rek mën na cee dugg mu ne ijtani boo ngeen di wattudu ko alxiibata jëw wariyaa a ak ndistal wasoo a ak lu ñaaw wal mun ak lu fëkk wal fansa ba tey ak ñaawteef ak ñaawteef mu ne na ngeen wattandiku jëw jëw moom mbooleem xeeti mooy yàlla yépp man nga ne moo ci gën a bon moo fen moo fen moo ci gën a bon moom jëw bi lu bon a bon la te ñu bari di ko def sayyidatuna fatimatu radiyallahu anha xam ngeen ko so euh, doomi yonente bi sallallahu alayhi benn jigéen da ko mos a romb rek mu ne ah jigéen gi maanaam mbicce mi mbicce mi rafet na maanaam malaanam gi nu mu yore ko rafet na yonente bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko fatima luujul mu luuju jël baaraamam dugal ko ci biir gémmiñ gi daal di luuju bi mu am benn suuxu ñuul kukk génne ci gémmiñam gi yonent bi na ko lu may nekk sa papa sa papa sa woy jur looy nekk sangu sangu jigéen ñi wallahi su resetoon rek safara nga jëm xoolal koog lu mu wax nanga moom rafet na rek ndekk loolu jëw la sëñ Tuubaa na jëw mooy lan bañ ko ko laaje dara même sax bu ngeen jàkkaarloo nii nga xam ne yéen a bokk benn place boo ko waxee loo xam ne mu naqari ko sëñ loolu jëw la waxuma la nag koo xam ne yaa ngi wax deram loo xam ne bu ko déggoon du ko neex yaa ngi dakaar moom ma nga kaw la loolu kon musiba la jëw lu bona bon la ba alquran da koo misaal ne mu ngi mel ni yow mu fekk sa mbokkum jullit dee nga ngay lekk yàppam xam nga loolu kenn bëggul ko moo tax alquran dafa mel ni dafa laajte ndax kenn ci yéen bëgg na am mbokkom faatu ba noppi muy lekk yàppam ba ñu ne ko déedéet mu ne kon bàyyi leen ko mu ne loolu mooy jëw nag wala yaqtab baxdukum baxdan ay yuxibu ahadukumu an yaakula laxma aqihi mayitan fa karixtumuhu kon nag bañ leen ko nga xam ne fu ne njaalo lu muy bon bon jëw ko gën a bon jëw njaalo lu muy bon bon fu ne jëw ko gën a bon ndax jëw ye doo ko tuubal yàlla doo ko jéggul yàlla du lu ko jégal mukk te njaalo nag mën nga koy tuubal yàlla mu jégal la ko ndax banneex ba nga ko doon defee yaag ndaw sax yéen a juboo boo ko ak jëw jëw nag moom kam koy def juboowu leen waaye bu dee njaalo moom bànneex ba nga koy defee yow ndaw sa da ngeen juboo kon kan ngeen war a tuubal mooy yàlla muy rëbbul asiti wal jabarut bu ngeen tuubee rek mu jéggal leen jëw moom ki nga def rek moo la ko mën a jéggal diw de jiw jiwoon naa la démb waaye nag maa ngi koy tuub sa kanam mu ne la waaw jéggal naa la ci xol bu la waaye doo ko tuubal yàlla mukk ba mu jéggal la alxiibatu ak jëw jëw lu boro borom la ku koy def ku ne mel na ni yaa ngi lekk yàpp jàmbor moo tax li nga gis nit ku toog ba yàgg di xaw a mel ni kuy kuy ràgg kuy lompañ ndeke maanaam ñi ngi koy lekk te yëgut ko yàppam bi ñu ngi koy lekk am na koo xam ne faatu na ndeke maanaam ñi ngi koy lekk te ko yàppam bi ñi ngi koy lekk am na koo xam ne faatu na tey la ko rey boo ko doon boo ko doon tey mooy jëw waaw nit ki boo ko waxee lu ko neexut sax loolu ak jëw la jëw yaatu na kon wattandiku leen jëw waaye ndistal yàlla wax na ci alquran ne bu leen yàq seen alal ci ñett yaa ayuha allazina amanu laa tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal asa ka lazi yunfiqu maalahu ria anaasi wala yuminu billahi wala bil yawmil aaxir suñu borom ne ne yéen ñi gëm bu leen yàq seen alal yi seen sarax yi ci ñax ak lor loo defal nit fexe rek ba ñëpp dégg ko waaw loolu mooy ndistal yow nga xam ne am na ñoo xam ne sax boo leen di defal dara maanaam yow mi ngi ko defal bëggoo say mbokk yëg ko waaye yow foo toog ci pénc mi rek kii de bii lay xewam li baa ko ci jàppale bu taxutoo nag man dara du baax bëgg nit ji dégg ko rek ne yaa ko def waaye xoolal fu ne nii nag jamono ji fii ci Sénégal gis nañ ne moom loolu moom dafa gën a yées ku fii def dara lu ne fokk ay télévision ñëw caméra la ñu naa diw de moo xëy jox un million nangam moo jox un milliard nangam déedéet yàlla waxut loolu in tubdoo sadaqaati fa niama fa niama hiya wa in tubfuuha wa tuutuha alfuqara foofu xayru lakum yàlla nee na bu ngeen feeñalee sarax baax na te bañ koo ndistal wax nañ ne sax booy joxe te jubloo ci ndistal moo ëpp doole ngay joxe ba noppi nëbbu ko te kenn du ko yëg booy joxe maanaam def ko ci télévision yi ñëpp gis ko te jubloo ci ndistal moo ëpp doole boo ko nëbboon ba noppi boo ko nëbboon ba noppi yow ak kan ko jox rek ngeen ndax su fekkee jubloo ci distal te danga koy feeñal télévision yëpp di ko wane xëy na keneen keneen royee la ci ndax jukkalu la xam ne jullit bi da koo bëgg keneen mën na ko gis royee la ko waaye bu la wóoree ne boo ko defee da nga ciy jublu distal am loo koy xalaat di ko fàttali ko ne diw dee maa ko jàppale ci nangam ba mu a gun maa ko defal nangam loolu yëpp xeeti ndistal la yonent bi dafa dafa dafa wax ne sax maanaam ndistal ci boppam mooy mbokkum mooy bokkaale bi gën a ndaw mooy bokkaale bi gën a ndaw mooy ndistal yàlla na ci yàlla musal mbokkam ndéggatal la mbokkam ndéggatal buñ ne ariyaa u lay mbokkam mooy suumaatu ndéggatal nit ki de lu mu def lu ne rek dana fexe ba nit ñëpp jot si te moo leen ko yëgal yàlla na ci yàlla kon na ngeen wëttandiku jëw waaye wëttandiku ak ndistal ndistal a root na ci alquran root na ci ay hadis kon loolu lu ma tabaay xel kon jëwa ngoog sëñ tubaa ne ne na ngeen ko wëttandiku ndistala ngoog sëñ tubaa ne ne na ngeen ko wëlbati waaye wasu wasu ak lu ñaaw sa mbokkum jul bu ko def lu ñaaw bu ko wax lu ñaaw ci sa kàddu bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ne jullit bépp bépp jullit moroom jullitam deretam ak deram ak xaraamam ak ak deretam ak deram ak diinaam yëpp dafa xaraam ci mbokkum jullitam waru ca yàq dara jullit dëgg mooy koo xam ne maanaam ñëpp dañoo bokk seede jullit ñëpp dañoo seede ne kii dee mosul ñu loor ci ay loxoom wala làmmiñam waaw ah, mooy ko xam ne daal koo xam ne jullit ñëpp dañoo ànd seede ne ah ñun kat waa ji ñu dëkk ci koñ bi daal bu dee ci loxom bu dee ci làmmiñam bu dee ci ay cëram bu dee ci ay waxam mosuñu cee lool dara nee dëgg dëgg jullit mooy kooku kon lu ci mat a bàyyi xel la waaye ak luñ fëkk na ngeen koo tëndiku mooy loo xam ne dafa wuuteeg sariya buñ ne munkar mooy lu sariya bëggut buñ ne maxruuf mooy lu sariya bëgg alfansa anak mooy ñaawteef yu jéggi dawe yàlla na ci àll musal mooy kon ijtani boo na wal munkar ak luñ fëkk mooy loo xam ne sariya xamul ko ndax yonente bi nee ne innama taantu bil ma'ruf yi topp moom luñ xam rek lañ koy def wal fansa ak ñaawte fi mooy yu jéggi dayooyu na ngeen ba tey na miimatan ak rambaaj rambaaj ak bon yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee bokk na ci liy waral fitnaay bàmmeel jullit bi buñ ko dugalee ci biir bàmmeel ñii di ko mbugal mooy rambaaj sallallahu alayhi am na euh, benn bàmmeel bu mos dugg yàlla wan ko kës fu mu ne ah yàlla day wan na ma kës fu bàmmeel bii mooy dugg am na ñaar ñu fee mbëwal ba ni ko ko laajee kan la mu ne kenn ki daraan daraan daraan tuur ndox te du weesu mu set maam daal daraan weesu nii rek daal daal di dugal rek ay awraam rek daal di dem nee na loolu moo tax nag ñi koy mbugal ci biir bàmmeelam kon nag kuy kuy kuy tuur ndox fexeel weesu ba mu set moo xam ngay góor ak guy jigéen bul bul yàkkamte bul yàkkamte dara loolu bokk na liy sabab mbugal mbugal bàmmeel ñee ne keneen ki nag li tax ñu koy mbugal mooy da daan rambaaj rambaaj nag mooy fekk diggante jëkkër ak jabar nga fexe ba tàggale leen diggante xarit ak xaritam nga tàggale leen diggante soppe ak soppe nga tàggal leen sallallahu alayhi wa sallam hadis bu gàtt boo xam ne ñetti baat rek la ci wax laa yadxulul jannata namaaman yonent bi neen du dugg aljana mukk koo xam ne ab rambaajkat la du dugg aljana mukk ak ku mën a doon yàlla nañ ci yàlla musal kon lu bon a bon la fexe bay tàggale ñaar par ñaar ndax kuy tàggale ñaar par ñaar ñaar ñu juboo loolu moom fooy dugg rek mooy safara ndax safa ndax aljana ñuy bañante ñuy tàqalikoo duñ fa dugg ndax ñi fay dugg ñëpp dañuy nekk benn dañuy nekk benn dañuy bëggante duñ bañante kon nag su fekkee yow adduna sa jukko moo doon teqale nit ñu baax ñi wala teqale ñaar nit ñu ñaar nit ak lu mën a doon rek kon bu yemal xamee la muy tegtale mooy bu yemal xamee dañ lay ber ci safara di la mbugal mbugal mu métti kon kuy ràmbaaj du tàbbi aljana fexe ba tàqale diggante ñaari way dencante fexe ba tàqale diggante way juru góor ak doom fexe ba tàqale diggante way juru jigéen ak doom loolu yëpp am na ci pénc bi kon Sëñ Tuubaa ne na ngeen wëttaliku na mii matan ak ràmbaaj ku koy def du tàbbi aljana bokk na ci li gën a bon waaye ba tey kis ban ak fen fen lu bon la yonent bi dafa mosoon am waaj yoo xam ne dafa ñëw dafa ñëw ci moom na ko waaw yow mi yàlla yónni ñaawte fi bëri nañ may bàyyi lépp dama bëggoon rek nga bàyyiloo ma ci benn yonent bi ne ko bàyyil fen waaw ah, bàyyil fen léegi nag waa ji yonent bi bi mu ko bàyyil fen te moom naan katub sàngara la kat la mooy yàlla yëpp mi koy def mu dem nag ba bëgg a def loolu xelam daj ne kat yonent bi teroon na ko fen te bu naanee sàngara bu demee ci yonent bi bu ko laajee lan nga doon def bu ko waxee loolu ne dama doon naan sàngara dana ci am kersa te bu ma ko ñàkk wax na ko lii laa doon def te moom laa def fen naa nee ne man waa jooju de ci la ci ci laa bàyyi lépp benn rek la ma tere ndeke kon boo bàyyi fen rek bàyyi nga lépp waaye boo bëggee fen rek xeeti moo yàlla yëpp yaa koy def moom xoolal fen rek lañ ko tere lañ ko tere mu tëjal ko buntum njaalo tëjal ko buntum naan sàngara tëjal ko buntum tux tëjal ko buntum mboole moo yàlla yonent bi dana ko bàyyi fen rek moo xam ne lépp lu mu def yonent bi dana ko ko laaj te bu ko waxee dana ci am kersa waaw te bu ko waxul mel na ni fen na moo tax moom mu bàyyi mu bàyyi lépp ngir lan liñ ko war a ko bàyyil fen rek yonente bi nee na iyaakum wal kasibu fa inna al kasiba yahdi ilal fujur wa anna al fujur yahdi ilal naar maa ngi leen di wëtandikuloo fen ndax fen da lay gindi yóbbu ci ak kàccoor ak saay-saay te kàccoor du la yóbbu fenn furut kon maa ngi leen di ak fen fen nag alkasib mën naa doon wax jox ne mën naa am cëslaay waaye nag du am maanaam da nga ci yokk lu bëri bëri loo xam ne bokkul ca moo tax nit ki bu bu bu jógee rek ngir bëgg fen rek kenn mënu ci dara mboolem xeeti mooy yàlla yëpp mu ngi taxaw ci kenn moom fen mooy yàlla yëpp fen du seen moroom dégg nga sëñ Tuubaa ci Jawharul Nafis mu ne nikk bu fenee benn fen fen wu ci boppam mooy bëtt ba asamaane juróom-ñaar ca yàlla na ko man may fenu diw doomi diw doomi diw ci kër diw réewam diw ñu bindal la bàkkaar bu toll ni doju uhud dégg nga kenn xamu nu mu toll moom la Cheikh Amadou Tidiane Chérif Al Maktoum daan wax ne fen moom du moromi gaa yi mu ne mooy mooy mooy mooy yu ñuy defee yàlla yëpp bu fen ñëwee rek ñoom ñépp ñu daw ngir dañoo ragal fen ñoom ñëpp dañoo ragal fen yàlla nañu ci yàlla musal kon na mii matan kispan rambaaj ak fen sëñ Tuubaa nee na na ngeen ko wëttadiku wala kibriya ak rëy yonent moom ñaar la ko firee muy yëg sa bopp nangoo ku wax dëgg ak xeeb nit ñi yonent bi ne ne lii rek mooy rëy am na koo xam ne làmmiñam dana forox ci wax dëgg lool waaye nangul ku ko dëgg boo ko dóoree dëgg rek mu gis boppam kooku mooy ak waaye ba noppi nag jàllaat ko xeeb nit ñi loolu moom mooy li nga xam ne mooy li alagoon nit mooy li alagoon ki nga xam ne mooy iblis laxnatullahi alayhi ca safara kon rëy baaxut ba tey riyan ak ndistal riyan ak ndistal dafa mel ne da ko bamtuwaat waaye bi mu ne ijtanibal xiibata wa riyaa dafa mel ne da ko ñëwaat fii muy ndistal ba tey rek xiyaanatan ak wuruj nit ki wóolu la dara ba dénk ko am ci yaakaar lool nga dem wuruj ko maanaam nam ko foogee woon ca yaakaar la yow defee ko noonu man kat am naa dara ne ah man kat sama mbokk mii wax dëgg yàlla kat wóolu naa ko dénk ko nangam te danga ko wóolu nag ba ko koy dénk de mu lekk ko ba noppi na la réer na wala mu ne dañ ko sàcc te fekk da ko lekk kon def na lu ñuy wax wuruj te wuruj kat du tàbbi aljana mukk waaw ah, du tàbbi aljana mukk yàlla ci yàlla musal kasaa na ko noonu almira a weerante foo tollu di weerante na ngeen ko wëttandiko kon tere na la wëttandiko jëw ndistal lu ñaaw luñ fëkk ak ñaawte fu jéggi dayo rambaaj fen rëy wuruj weerante waaw wa ruxiyatal fadli al xool bëtub xool bëtub gën moom mooy mooy xool bëtub ngëneel alal axyaari ci kaw way réer ñi maanaam defe ne daal yaa gën sax yéeféer ñi ab jullit wartu wartu defe ne sax moo gën yéeféer ñi doot nag yaa ngi ci lislaam ñoom ñi ngi ci safaanuk lislaam waaye waroo xool ne sax maanaam yaa gën yaa gën kenn benn hakim daraan wax ne nit ki ñett rek la maanaam ki nga mag jàpp na yaa ko gën a bon parce que lu tax mooy danga war a xam ne yaa ko gën a bëri caay-caay ci àdduna ndax yaa ko mag yow xëy na am nga téeméeri at moom juróom fukki at rek la am ki nga tolloo kasaalika fexeel xam sa ñaawteef bul xam ñaawteefam ndax moom ñaawteefam la xam ki nga xam ne itam ba tey moom moo lu moo la féete gune kasaalika ak ki la ki la féetee mag itam kasaalika jàppal ne yaa ko gën a bëri ay ñaawteef moom daal ki mag ak ki nga tolloog ak ki nga xam ne yaa ko mag ak kii la mag ak ki nga toll ak yëpp jàppal na daal yow rek yaa am ñaawteef kum ci mënoon rek jàppal na yaa am ñaawteef kon waroo xool bëti kenn na man maa gën kenn kenn xamul ku gën loolu moom ci yàlla rek maanaam ci laaju inna akramakum indallahi atqaakum suñu borom ne ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon waroo yëtul li ak xool bëtu ngëneel alal axyaar ci kaw way réet loolu ab jullit du ko def naka noonu na ngeen wattandiku suxbata faasixin àndaale ku génn topp bilal tiraari ci lu ci lu ak loru loolu mooy lan ku génn topp mooy kuy def bàkkaar yu mag yi ba noppi te di ko feeñal te nëbbuwul ci dara mu ne moytu leen di ànd ñoom moo xam ngeen di toogaale ñoom ci duru ngant nga xam ne ngant lu mel ni nga am sa benn koo xam ne yéen a bokk ndey ak baay yow nga nekk ci diini ji moom nekkul ci diini ji mu dem ba feebar kon man ngaa toog ak moom man nga ko yóbbu hôpital nangam waaye nag lu dul loolu moom mayuñ la ngay ànd moom mooy la ngay dem ak moom fenn di ànd ak moom di doxi di waxtaane ji di naan ji attaay di togg ci garam place yi di dugg ci oto yi déedéet dañoo bugg rek lu mel ni rek lu mantu ngàtt lu mantu ñàkk ñu ne ah moom kat feebar na te xam nga ni nit bu feebaree ay mbokkam ñoo koy taxaw kon nag mën ngaa dem taxawu ko waaw ah, mën ngaa toog ak moom ci lal bi man ngaa toog moom ci suuf ngir lan ngant rek a tax dafa am loo xam ne yaa ko ci war a dimbale yaa ko ci war a jàppale kon nag waaye loolu loolu rek mayuñ la moo tax mu ne kon na ngeen wëttandiko suux bata faasix ne àndaaleeg aji génn topp mooy ko xam ne day def bàkkaar yu mag yow nopp di ko bilal tiraar ci durul ngant bilal tiraar ci durul ak loro dégg mu ne tuubu alal fawri is as naptumoo doomoo alal sukkooti in xadibti moom mu ne tuuboo na ngeen tuub alal fawri ci lu gaaw as is asnabtumoo ci jamono ya ngeen bàkkaaroo yonent bi nee ne waat naa ci yàlla ne su fekkoon ne du ngeen def bàkkaar di tuub di dellu ci yàlla yàlla dana leen fi jëlee indiwaat ñeneen ñoo xam ne dañ koy moy te suñ ko moyee ba noppi jéggalu ko mu jéggal leen inna laaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahhiriina gis yàlla mooy ki nga xam ne day yool way tuub ñi di dellu ci moom waaye mooy ki nga xam ne dafa bëgg itam ñi nga xam ne dañoo làpp mooy ñi nga xam ne saa suñ defee bàkkaar rek dañooy njëkkante tuub dellu ci moom borom bi tabaaraka wa taala moo tax kon mu ne ba tey sëñ Tuubaa di digle mu ne tuuboo na ngeen di tuub alal fawru ci lu gaaw is asnabtu moo dem bàkkaaru ngeen bu ngeen bàkkaaroo defee bàkkaar rek ca sansa daw leen tuub ca sansa yàlla soxlawut soxlawut ku maanaam bañut ku tilim ndax xam ne doomu aadama da ko bind ci tilim muy def bàkkaar waaye lim bañ mooy kuy ñàkk sangu ñàkk sangu mooy lan mooy di tuub di dellu ci yàlla wa anibo ila rabbikum wa moo lahu min xabli an yaatiyakumul asaabu suma laa tunsuroon suñu borom leen na ngeen di dellu jëm ci seen borom te ngeen jéggal ko seen lépp laataa di leen digal laataa di leen dikkal mbugal moo xam ne kenn du leen fa dimbale kon nag na ngeen di tuub di dellu ci seen borom subhaanahu wa taala yaa ayyuha allasina na tuuboo ilallahi tawbatan nasuhan yéen ñi gëm na ngeen di tuub dellu ci yàlla tuub goo xam ne gu sell la mooy tuub goo xam ne da ngay buddeeku ci lépp la la taxoon di tuub te dootoo waat ci loolu mukk lu dul nga fàtte ko wala nga àndum juumte ya moo taxoon mu ne tuuboo alal fawru is asnabtuma na ngeen di tuub ci lu gaaw mooy lu bu ngeen defee bàkkaar rek tuub leen ci lu gaaw dem dellu ci borom bi subhanahu wa mu jégal leen mu ne doomoo nangeen ngeen sax xale sukkati ci noppi in xadibtumoo ndem mer ngeer mooy li Sëñ Tuubaa waxoon na bëri na wax joo xam ne lay tonta mooy noppi am na ku ñëw tey di la cokkaas wallahi dalaa bëgg a pexal rek lu mu la wax rek noppil maanaam tey noppi tontu la tontu lu doy sëkk la am na ko xam ne tey fu ne bu la doon wax te doo ko day bëgg nga tontu ko ndax boo ko tontoo rek benn mën na laa dóor xeej mën na laa dóor jaasit mën na laa dóor xeex te ngeen fay xeex bu la jekkoo loolu mën na ko ndamoo heure bu ne fu la gis fu la siir mën na ko ndamoo waaye am na koo xam ne tey moo tax noppi galaaj la gis nga boo boo boo boo bañ a xeex del rek doo xeex ak kenn waaye boo gisee xeex la koy waral yëpp mooy wax ju bëri ñàkk noppi loolu waaye wax nga delloo ko ko jàpp ne gënu laa ñaaw kàddu boo waxee mu ne kii lu may jaay maa ko gën a ëppale waaye bu fekkee lu may jaay baaxut nag yow kii li may jaay baaxut nga naan li may jaay maa ko ëppale su ko defee ñaari maa ko ëppale yooyu buñ dajee dañuy gaañante rek moo tax du maar mi boo demoon ci docteur yi tey danañ la wax ne maanaam feebar yu bëri dañoo gis ne ci mer lay bay ko mer li muy def ci nit ki lu bëri bëri la musiba yu bëri bëri moom lay jural doomu bi moom mer bëri na tey ku taw feebar deretam a ko xeñ deretam tàngug deretam ci la jëlee tawat jooju ba mu ñàkk ba kanam mer boo demee ci médecin yi bu ñu la koy nettali da ngay maanaam ni mu bonee ci doomu bi waaye ñàkk meer mer itam ni mu mën a joxee nit ki wér-gu-yaram itam kasaalika naka noonu noonu la mel contraire ba kon nit ki saa su meree rek nay noppi ndax noppi mooy doon tontom noppi mooy tax mu féex yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko jëlaal ji euh, bu ko jëlaat ji ñëw lan lu mel ni mer danaan wax arix naa yaa bilaal Bilaal indil ko sa ndox mu jàpp julli moom bu meraan danaan jàpp julli rek xol bu féex ndax moom léppam rek bu delloo ci yàlla rek day gis na féex na mer ma féex na ci sens kon mer baaxut doo moo ala sukuuti isqadibtu moo kon na ngay wan mer wal kaasimin al xaysa wal aafina ani naas walaahu yubil muxsinina gis nga yàlla nee na tàgg na ñi nga xam ne dañuy wan mer bu noppi di baal nit ñi te duñu leen toppee dara lu leen waaye def dañuy dañuy wan mer ma dañuy war na mer ba dafa naa ne sëñ Tuubaa waxoon na ci nuuru dareen yaa musilal kas mi yàllaa ko dindi yàlla dafa dindi loolu ci moom maam di jàppal kenn dara moom lu ne rek da koy da koy baxal moom sëñ bi xaadalaa muxtarloo kon nangeen ngeen di saxoo noppi jamono yi ngeen meree soo meree daal a ah, lay gàllaj gi dëgg-dëgg mooy noppi boo noppi rek jeex na asumtu hikmatun wa qalilu faa'iloo sallallahu alayhi wa sallam nee ne noppi de hikma la waaye nag nee na lu néew a koy def ba di sax dàkk alal makaarimi ci teddangeeg al axlaax jukko yi na ngeen yore jukkoo makaarimul axlaax jukkoo makaarimul axlaax nee na koy yor abi hurayra ta dafa wax ne dafa amee waajoo xam ne dafa waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inna li qarabatan usiluhum wa yaqtuuni wa ahsana ilayhim wa yusiuuna ilayya waxlum anhum wa yajxaluuna aliya fa qaala la in kunta kama qulta fa ka annama tusuquhumul mallu wala ma maxaka min allahi sahirun alayhim ma dumtu ala salika neen dafa am waaj waaj yoo xam ne dafa ñëw ci yonent bi salaa sam ko man de dama am ay jegeñaal yoo xam ne dama leen di jokk rek lu may séddale ñoo ca njëkkaaw lu may wax wax ju rafet ñoom rek laa koy wax waaye ñoom dañ may dog rek safaan ba lañ may def may rafetal jëmee ci ñoom ñii ñaawal di jëmee ci man ah yonent bi na ko su fekkee nii nga ko waxee bul yokkoot mukk di ko def fii gi yaa ngi koy def rek ndimbal yàlla du dëñ mukk di di la wàcc gis nga yonent bi nee ne makaarimul axlaa mooy koo xam ne ku la saaga nga baxal ko ba noppi tofal ko ci wax ju rafet ku la yéene xay nga yéene ko aw yiw booy nuyu moom ngay jëkk a nuyu booy joxe moom ngay njëkk a joxe defe naa ne lii képp ku ko def rek man nga ko waa ji dalaa mer ngay séddale alal ñëw njëkk koo jox bu yàggee dootu la bajati ah waaye su fekkee waa ji dalaa bañ yow it foo ko romb ci garam place yi boo ko séenee sax da ngay jàdd da ngay ba doon loolu du jàmm loolu du makaarimul axlaax makaarimul axlaax mooy koo xam ne dangay man a nekk ak nit ñi lu la waaye def rek mën nga koo supporter da nga ko koy baal loolu waaye ma di def rek man nga koo supporter da nga ko koy baal kon loolu mooy makaarimul axlaax yonente bi nee na sama xeet duñ dañ mukk di nekk ci aw yiw feeg lan mu ne feeg nit ñi ñi ngi amee jikkoo makaarimul axlaax mooy lan feeg mag ñi ñi ngi yërëm ndaw ñi waaye feeg ndaw ñi ñi ngi wekk mag ñi ngeen mag jox leen cërub mag waaye feeg ndaw feeg mag ñi ba tam ñi ngi wekk ndaw ñi ngir di leen yërëm maanaam feeg mag ñi ñi ngi yërëm ndaw ñi waaye feeg ndaw ñi ñi ngi wekk mag ñi ngir jox leen cëru mag nee na duñ dañ mukk di nekk ci aw yiw feeg loolu ngay am ndax tedd geeg ju ko moom la suñu borom taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuliqin asimin yaa nekk ca kaw njombaxtu kon doomoo na di sax alal makaarimi ci tedde nga ak al axlaaqi jukku yi wajtani boo na ngeen di wëttandiko jiddal lool xalal nifaaqa ci naafiq naafiq gu tar la naafiq mooy koo xam ne yorut menn pax waaw nga xam ne gis nga baat bi rek fu mu baye ko mooy janax yi nga xam ne ñooy nekk ci pax mi boo ko dàqee mu dugg ci pax mi nga jàpp ne mu ci biir pax mi fekk ne génneewaat na ci beneen tuj ful dem <laughs> baatam nafaxa foofu la génnee baat bi foofu la ci saano nga xam ne mooy janax ji nga xam ne tey xam nañ ko def naa ne ñi may déglu xam nañ janax yooyu lu mel ne jinax cooy yooyu nga xam ne boo leen toppee dañuy dugg ci pax mi nga defee ne ñu ngi ci biir pax mi pax mi xóotul booy gas booy gas da ngay gas rek di dem ndekki moom génnewaat na ci beneen bay na saalika laa ilaha ulaay wala ilaha ulaay moom daal bu newee si jullit ñi wane ne ci jullit ñi la waaye bu demee ci yéeféer ñi ba tey di toogee di waxtaane jullit ñi di xamal yéeféer ñi seeni secret waaye yàlla nee na basiril munafiqina bi an na loo masaban aliman yonent bi vérifié naa naafiq yëpp ba xamal la ko kon nag na nga xamal naafiq yëpp ne mbugal mu métti mi ngi leen di xaar moo tax nga ci suratul baqara bi mu waxtaanee ak jullit ñi ci alif laam miim saalikal kitaabu ay aaya la indi dugal leen aljana yéeféer ñi ay aaya la indi dugal leen safara waaye naafiq yi moom dafa leeral seen mbir ba mu leer naññi ba ñëpp ko yàlla yàlla musal ci ñoom moo taxoon mu ne wajtani boo na ngeen wattandiku ji daan lool ala nifaaq ci ak naafiq mooy koo xam benn équipe moom daal fu mu dem rek euh, mënoo ko xam ne kii ab jullit la waaye mënoo xam ne ab yéeféer la parce que bu ñëwee ci jullit ñi day julli waaye bu demee ci yéeféer ñi itam lañ fa nekkee rek la fay nekkee du julli ba tey kon ko kenn mënee su ko xam fii la bokk wala fële waaye nag moom mu ab ab la gën a nekk ci ab jullit waaye nag mënee soo ko wax ne ab yéeféer la mënee soo ko wax ne ab jullit la parce que yow jullit bi li ñu la attaloo mooy wàllu saahir te moom baatin bi day dem ci yéeféer ñi di mooy yàlla saahir bi mu ñëw ci yow yow jullit bi naan day day day topp borom subhanahu wa taala kon yow li nga mën a att rek nit ki de ku baax la léegi nag loolu bëri na ci jamono bi waaw am na ñoo xam ne ñu bëri ay naafiq lañ yàlla mu ne koonoo na ngeen nekk yi naa di way noppi anil kalaami walis wax loolu moom waxin la yonent bi dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw li liyasmut maanaam koo xam ne nekk na di gëm yàlla di gëm bis penc nay wax rek lu baax bu jeexee mu noppi kon ñàkk wax kenn du ko def waaye nag booy wax na nga wax lu baax boo mëntu wax lu baax na nga ne cell noppi wala benn nga jël sa kurus gi naan laa ilaha illallah wala ngay julli ci yonente bi sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin defe naa ne loolu ku ko miin ba mu sax salaam mañ dootoo talati wax ju wax ju soof dootoo ko wax ju xam ne dafa soof dootoo ko talati kon koonoo anil kalaami saakitiina koonoo ilal xayraati saariina moo tax mu ne koonoo na ngeen nekk saakitiina di way noppi anil kalaami walis wax mooy wax joo xam ne ju bon rek la la ci jublu waaye jubluñ ci noppi noppi carrément déedéet koonoo na ngeen nekk saare xee naa di way njëkkante ilal xayraati jëm ci yiw yi alquran moo soññ ñiy def musaaraab al musaaraab di njëkkante di def ci yiw yi innahum kaanoo yusaaroona fil xayraat wa yadxoonana raqaban wa rahaban wa kaanoo lana qaasina saabiqoo ila maxfiratin min rabbikum wa janatin arduha ka ardi samaa'i wa suuratul hadiid kon di njëkkante fa la di jiiroo yiw yi kon yiw rek lu baax rek mat a jiiroo heure bu ne yaa lamb te xam nga ne yooyu yëpp dafa xaram ci mbo loolu yëpp ay xeeti folo yoo xam ne dafa xaram jàng ko ci borom laxdari mu ne wal xabasu wa suxriyatu yooyu yëpp ay folo yoo xam ne yu bon bon la te nit ñi fu ne nag mel na ni def nañ ko farata wane ne lu dagal la yàlla na ci yàlla musal mu na ngeen nekk naahi diinaa di way buur la salaati fa julli ya li awlel awqaati ci njël benn waxtu ya xaaji li naa mbir moom ngeen di way gaaw gis nga lu mat a bàyyi xel la ba tey kon ba léegi gannaaw bi la teree ba léegi ma lay tere waaye ba léegi mi ngi lay digal digal na la doomoo alal makaarimal axlaaqi digal na la doomoo alal sukuuti in xadibti moo waaye wëttandiku loolu na la wajtani boo jidan alal nifaaqi waaye digal na la koonoo anil kalaami saakitina digal na la koonoo ilal xayraat saarina mu dee la digalaat ne bu ngeen déggee noddu gi rek wala ci misaal nga gis na ah waa ji kat mu ngay tijji jumaa ja mu ngay tijji jàkk ja demal nga jàppwaale waaye bul toog ba ilimaan ba ñëw ba noppi bañ li xam bay julli nga ñëw nan da ngay doog ko bokk déedéet te defee woon dara kon da war a def saa soo déggee nodd gi nodd ci lislaam rek nodd ci boppam li muy tegtal rek mooy woote ñëw leen ngir bëgg ñëpp wàcc balaa imam bi di ñëw bay def ñaari rakkam bay jóg euh, ki nga xam ne mooy li xam di li xam su ko defee yow nga mën a ñëw loolu moo tax ñuy nodd hayya ala salaa hayya ala falaa mooy ñëw leen ci jëf juy sabab ak texe jëf joo xam ne bu ngeen ci ñëwee da ngeen texe ñëw kon loolu mooy tegtale ak noddu noddu day woote rek waaye mënoon naa ñàkk sax waaw ta te terewul nit ñi dana ñëw waaye dañoo bëgg ñëpp buñ déggee noddu gi lépp luñ doon def moo xam ka nekk ca marché moo xam ka nekk ca tool ya bu déggee noddu rek daal di bàyyi lam doon def yëpp ngir dem julli ji moo tax mu ne kuunu la da salaati naahidiina li awlil awqaati xajilan kon waxtu yi moom buy rek lépp la nga doon def dagg ko waaw lépp la nga doon def dagg ko moo tax mu ne koo na ngeen nekk naahidiina di way buur buur mooy gërëg jog lu mu la mën di fekk sëñ Tubaa ci njaarim am na ñoo xam ne dañ doon sàkket da ñi dégg nodd gi di sàkket rek ba sëñ tubaa julee ba noppi laaj leen lu tax ñu ne dañ doon dañ daaw am ñu doon yeggli sëñ tubaa ne ana ba ngeen déggee nodd gi fu ngeen tolloon ñu ne fii mu ne ràbbati leen ràbbati leen la ngeen sàkketoon lépp gis nga loolu kon naax yi na ngeen di woy buur euh, la da salaati fa julli ga mooy bu ngeen déggee julli gi rek nodd ko rek na ngeen buur daal di dem ci saasa li awleel awqaat arax sa bopp ba wamaa xawaa ak la làq na ko wëlbët na ak biir ba misloo kemam ak la ko méng wamaa la ak wamaa ak la nga xam ne waa laahu méng na ko mu ne na ngeen di wutu bopp bi ak la ak la xam ne làq na ko xam nga lan mooy wutu leen seen bopp ak lam làq mooy ku nekk xam ne ne nit la bu Abdoulaye doon wax rek ku am bopp ci kaw gis tànki fii ci suuf rek kook nit lañ koy wooye ci ñun kon boole bopp bopp lan la làq mooy bët lu mel ni bakkan lu mel ni gémmiñ lu mel ni làmmiñ lu mel ni nopp kon loolu bakkan làq boo tuddee biit rek xawra yaag tànk yaag yépp day dal di dugaale. yaag tànk yëpp day dal dugale waaye boo tuddee bopp moom lépp day dal dugale lu mel ni làmmiñ ak yeccaaju yëpp day dal dugaale. moo tax mu ne kon wal tax fasoo na ngeen wëttu arax sa bopp ba wamaa xawaawu ak la làq na ko wal bët na ak biir ba misloo kemam wamaa waalaaw ak la méngu na ko moom biir ba maanaam daal na ngeen wëttu seeni biir ëx nii li ma namm bii ci loolee al aynayni mooy ñaari bët wal usnayni ak ñaari nopp wal farji ak sa pëy warisaane ak làmmañ wa war a jëlee ni ak ñaari tànk ya mu ne lim namu ci na ngeen wëttu seen bopp ak lam làq ak seen biir ak lam làq mooy seen ñaari bët yi na ngeen ko wëttu ba du leen ci bu leen ci xool mukk lu xaraam seen ñaari nopp yi na ngeen ko wëttu ba du ngeen ci déglu lenn lu neexul yàlla seen pëy yi bu leen ko dugal ci pëy koo xam ne daganut leen lewut leen mukk seen làmmañ bu leen ci xas gor yi mukk bu leen ci wax lenn lu ñaaw seen ñaari tànk yi bu leen ci dox mukk di jëm ci lenn loo xam ne lu rafetul la kon daal say bët koy xool lu neex ci yàlla jeexal ko ci say nattu a ah, nanga koy xool ci lu na nga ciy déglu lu neex yàlla te jeexal ko ci say pëy na nga koy dugal fu neex yàlla te jeexal ko sa làmmañ na na koy waxee fu neex yàlla te jeexal ko ci say tànk fi ngay foo mën a dox jëm rek na nekk loo xam ne day defar diggante ay mbokk ak i jaajo waaye lu dudur loolu rek lu bor bon yàlla ci bu musal mu ne salloo na ngeen di julli la rasuli ci yonente bi sil xamaam yi kay borom niir ya wasalimoo na ngeen di sëlmal ba tey ay daan ba tey madal ayaami diirig bis yëpp mu ne na ngeen di julli ci yonente bi nga xam ne mooy borom niir yi yonente bi mooy borom niir ku ne xam na ko ndax bi mu amee fukki at ak ñaar rek bi ànd ak abi abi abi ki nga xam ne mooy abi taalib di dem saam gis nga labbi boobu di bayraa gisoon na seetloon na ci yonente bi salaay sam ne euh, bi ñoom abi taalib toogee ci ker gi nga xam ne ker gi fu ne fees na am mbooloo lañ yonente bi salaay sam ñëw bëgg a toog ndeke ker gi dafa fees yonente bi dem teg ca naaj wa gis na ne ker gi dafa déplacé wu dem di keral yonent bi salaasam bàyyi leen fa loolu laataa muy doon mag rek ba muy am ñaar fukki at rek niir yi daan nañ ko keral rawatina bi ko yàlla yónnee ak bi mu ko yónniwut yëpp niir yi da ko daan keral maanaam moom naaj moo nanguwutoon mu di ko tàng kon Sëñ Tuubaa dañ la waral ne ba tey julli ci yonent bi lu am am solo la bokk na ci liñ digal mboolem mbokkam ñëpp ak étudiant ñëpp ñuy julli ci yonent bi salaasam fu ñu mën di toll ndax mooy jaamu yàlla goo xam ne lépp la làmboo soo koy def yaa ngi koy defandoo ak yàlla mooy jaamu yàlla joo xam ne yàlla du ko jël mukk di ko fayee keneen yow rek la concerné fëre jaamu yàlla yëpp julleeku woor naa la natte asaka dem màkka yëpp bu yowmal xeame ña nga yorloon ak mën nañ ko ko mën nañ koo jël di leen ko jox bam jeex nga dem safara waaye julli ci yonent moom loo ci man a def doyut bu yowmal xiyaamee duñ ko jël di ko jox keneen koo tooñal di ko yoral a yàq waaye yow lañ koy jox julli ci yonent bi ku koy def doo dem safara te yonent bi sallallahu alayhi ki a yee ko mooy ki ëpp lu mu daan julli dégg na sama tur ñu tudd ko te ci man nee na toroxtaange dal na bakkan boo xam ne tudd nañ ma te julliwul ci man kon saloo na di julli ala rasuli ndax niir ci boppam du nangu naaju di ko na ngeen sëlmal aydan ba tey ca moom ma dal ayaame ci diidu bis yëpp bis bu ne daal na ngeen di julli ci yonente bi di sëlmal ci moom ndax inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabii ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu ne doomoo na ngeen di saxaalal awraad yi ci ci wirda wal askaar yi ak ay ay tudd yàlla fii kulli laylatin bépp guddi wa fii nahaari ak bëccëg sëñ Tuubaa ne na ngeen sax ci wirda di def ay awraat ay dog yoo xam ne da ngeen di wirda da def ay askar mooy tudd yàlla benn dog mooy lu mel ni nga warul sa bopp bis bu ne dee fas yéene naa jàng jaalibatul maraaxib buñ julee tàkkusaan wala buñ julee suba nanga maanaam daal fas yéene rek loo xam ne daal warut la waaye yaa ko sa bopp ah warul am ngir lan bañ a dem ci fooy rek ak caaxaan yi bu dee ci yoonu murid nag moom am na du tee am na wirda muy wirdatu almanqus nga xam ne dafa bàyyi ko ci yàlla mu jaar ci yonent bi mu nga xam ne wirde la woo xam ne bu am doole def naa ne képp koo xam ne am na ko dootoo talati fo dootoo talati fo ndax day dox sa digganteeg fo su ko defee loolu mooy ay awraat dog boo xam ne yaa ko warul sa bopp doonte warul la loolu nag mën naa doon euh, jàng alquran mën naa doon jàng xasida mën naa doon tikk sukkur di julli ci yonente bi mën naa doon ba tey aw wirde woo xam ne moom euh, da dañ cee tëral ay sarta lu mel ni wirdatu almanqoos nga xam ne dafa am ay sarta dafa am sarta yoo ko war a lu mel ni xëy ak ngoon donte nag am na yoo xam ne mën na laa raw nga fay ko ci waxtu waaye yooyu day fekk euh, gënut day fekk nga ngant yooyu yëpp kon def ko ci waxtu mooy gën waaye bu dee nag lu mel ni jàng xasida nangam heure bu la neex mën nga ko def ngir da dangaa bëgg rek xasida ya ngay jàng mu dox sa digganteeg fo kon daal guddi gi na ngeen di saxoo ay awraat ak ak ay askar ak bëccëg yëpp bu ne guddi gi guddi gi yëpp dugg na waaye bu ne bëccëg gi li ko dalee suba ba ngoon yëpp ci la bokk kon daal bis bu ne baam na ngeen di saxoo di saxoo ay askar ndax lépp dafa rot ci wal askaari ak ay askaar te muy tudd yàlla fii kulli laylatin ci bépp guddi wa fii naari ak ci bëccëg yi wa sabihuhu bukratan wa asilan gi alquran wax na ngeen di sàbbal yàlla di ko tudd ci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar moo xam ci xëy yi ak ci ngoon yëpp yaa ayyuha allazina amanu uskuru laha sikran kasiran wa ko bukratan wa asilan yéen ñi gëm na ngeen di tudd yàlla tudd goo xam ne gu bëri la kon ab jullit li mu war di gën di bëril mooy tudd boromam subhanahu wa taala gannaaw ba mu jàllee muy bëril di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee léppam baax